ñu yëkkatiwaat sunu kàddu ngir euh, waxtaane ak borom kàddu gi nag mu ma ji ci jaajëfal képp koo xam ne yëkkati nga ci sa kàddu ca yoonu ñor la ma yëkkatiwaat kàddu ci turu xudaamul xadim euh, te nekk ca euh, bopp ba di sëriñ Amsatu mu Cheikh Abdoul Ahad ñu koy jaar di siyaare sëriñ Falilou Fall mu sëriñ Aliou Fall Mbawor di siyaare mboolem mbokk yi nga xam ne ñoo ko seq yëpp kàddu gi mi ngi jëm ci journal bi nga xam ne moo di Le Quotidien te ki ko moomee di Madiambal Diagne eh, ma di ko wax rek na ko mm, moom day xam naa ne lim fas yéene bind ci journalam bii yàlla du ko ci far muy defetu yoonu murit mosuma daje ci journal bi benn yoon wektuwaar lu mu bindal Touba muy ndam musta am ba journal bi sosoo ak léegi du bindal Touba mukk ndam defetu Touba rek lay war di ko bind bu ngeen fàttali ci ginnaaw am na lu mu njëkkoon a bind ci kilifa gu fi bàyyi ko woon maan ña ngi koy yóbbu di ko denc ci tàngaayu suufu Tuubaa sa loolu yàggut waaye sëriñ Tuubaa noon na xuloo bu man lam yuhibbuni ala wajalin wala yulaaxuuna maaraama walal baabu mu del siwaat bindaat ne Tuubaa li mu bind ci mujj mi ma wax ko ne ko Tuubaa yeex nga cee bind ndax bi kaa bi duggee Tuubaa ca ñëpp di maase di dégg naan cas numéro 5 ci coronavirus bi ma nga Tuubaa cas boobu bi mu duggee Sénégal gépp Touba bokk na ci dëkk yim njëkk a dugg njëkk koo génn njëkk koo dugg njëkk koo génn muy ndam lan moo tax xoolal wectuwaar bu toll ne màggalu Kazu Rajab ni mu toll ci àdduna jëfe ndigal tax Touba bàyyi ko félicité ci waa Touba bindoo ci dara lu toll ne màggalu Daarul Muxti ni mu toll ñu bàyyi ko ngir ndigal félicité woo félicité woo ci waa Touba delloo leen luñ ci jëkkal lu toll ne màggalu Sëriñ Masamba lu toll ne màggalu soxna faatije yii yëpp ñu tere ko ngir ndigal li nga xam ne moom la sëñ bi wax bindoo ci dara rafet lu ko ci li Tuubaa def lii am di natt bu bàyyi ko ci suñu borom Cheikh Mahamadul Muntaxa génn deux cent millions dimbalee ko président félicité woo ko ci bindoo ci ndam loolu kuréel bu ñuy wax Touba ci kanam ci biir Touba def sensibilisation bi mu def génn quarante cinq millions jàppale ko population bu Touba bindoo ci dara ñu ne kaa bi dellusiwaat na tuubaa ni mu dellusee Touba Touba Carrefour la yoon wi jëm Daara Jolof fi la jaar wi jëm Tamba fi la jaar wi jëm Ndar fi la jaar kuy dem Louga fi ngay jaar ba noppi nit ñi am yitte di ñëw Touba ak di génne Touba kaa boobu xamoo dañ ko importer indi ko Touba wala déet ngay bind naan Touba ak Mbàkke mooy yoon yi gën a bon ci ci ci jàngoro ji waaye ma jàmbal yaa bon waaye nag duma ci sori. dama lay xamal ne kuy wut defetu yoonu murit sa defet mi ngi ci suuf ndax sëñ Touba noonu ne woon képp koo xam ne yaa ngi léewtoog man bul jàpp ne population Touba ngay léewtool yàlla ngay léewtool ndax man yàlla rek laa nekkal te bërëb yàlla ak doomu aadama mosuma dégg njëlloo am na ca wala mat si niil la kon maa ngi ñu ngi lay bàyyee ak sëriñ bi di la bàyyee ak borom bi subhanahu wa taala di lancer appel nag ci bépp murit joxewuma ndigal damay sàkku ci bépp murit bépp journal boo xam ne ka cay wax du ca wax sa ndam dangaa war a am mat gu toll ne yow dootoo ko xool kon murid yëpp nañ maase croix bind ñaari rëdd yu xonq yu galanante ci journal bi nga xam ne fasut yéene génne benn yoon wektuwaaru Touba defetu Touba rek lay wër ca du ko gis ba mukk nag waaye muy àgg ci di sosol Touba di leen waxal loo xamante ni bii dara rafetu ci kon ñoo ngi wax ci sun mbokki murid yëpp fu ab taalibe mën a ne journal bii daal ñun ñëpp nañ maase gëmm ci suñuy bët waat na benn murit duutu ko xool ndax kat ku liggéeyal sëñ tubaa ku man a doon murit yee la war a fay waaye ku wan ginnaaw sëñ tubaa ku ne murit yee ko war a faj kon nag nañ xàmmee baatu fay ak faj te fi mu toll tembe faj jot na sëriñ am satu ci turu xudaamul xadim daana wax ne su la mbaam weqee na yat wa dal su ma mbaam weqee ma weq ko ñaari mbaam lay doon bu la mbaam weqee na yat wa dal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.